juróom-ñaari waxtu jot na file ci makkaanu global télévision GTV yamagu waxtu wañ leen dëgtal xibaar yi la ca gën a fës. doore ko ak li di wàccaayu ñooy toogal uh, askanu Sénégal ca pencum ndaw uh, réew mi ak nag société civile yi nga xamante ni daal nañoo tëral ab uh, kuréel gu ñu dippee saxal jàmm ñoom nag lañ cay sàkku nag di ko woote mooy feex rek way politique yi daal di sa sàkku jàmm waaye tamit woote jàmm ci yile campagne ba nañu duggee ci li nga xamante moo di élection yi nañ leen teewlu ci biir jotaayu xibaar yi. danañu wax ci moom Bougane Gueye Dany gannaaw bi ñu ko teggee loxo niki démb ca tribunal bu Tambacounda yëkkati nag ay kaddu yoo xamante ne nag daan na ko jagleel ñi nga xamante jàppale woon nañ ko waaye tamit nag dellusiwaat ci euh, li nga xamante moo teggub loxo giñ ko teg loxo ak leen li mel moom Bougane Gueye Dany nañu daal teewlu ay kàddoom ci biir jot jotaay xibaar yi dinañ wax tamit lu ñeel lii di uh, wàccaayu li nga xamante ne moom moo di uh, campagne wi jëm nag ci tànneefu njiit uh, tànneefu ñuy toogal askanum Sénégal ca pencum ndaw réew mi ak alsaar yi nga xamante ne bokk na ca biir ni ki dem nag ña nga woon file ci diwaanub Ndakaaru amul fi ab caravane gannaaw loolu nag kenn ca ñoom moom Mamadou Abili yëkkati na ay kaddu doon coordonnateur bokk ci bile quoi bokk ci bile mouvement ay kàddoom nañ ko daal teewlu ci biir jotaay xibaar yi danañ wax ci wàllum énergie yi tamit ci biir jotaay xibaar yi ak ab xaatim koo xamante ni dox na diggante jëwriñ gi ñu dénk wàllum énergie ak bu formation professionnelle la ko war a moo dañuy gën a daal di ñongal formation professionnelle naka noonu tamit ñoom ñaari jëwriñ ni yëkkati nañu ay kàddu rafet nii ni mel dañ leen daal teewlu tamit ci biir jotaay xibaar yi mbokk yële ponk ñoo daal di gën fës léegi la ñu tàbbi ci yaatal gi mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu ñu dooree ay wii jotaay xibaar wax nag ci moom njiiti réew mi Bassirou Diomaye Diakhar Faye ginnaaw nag bi mu amele woon ab tukkib nemmeeku ca Arabie Saoudite jóge na fa nag daal di wutali ca diwaanu pa Turquie niki tey ci alxames gi mu di nak tukki nemmeeku goo xamante ni fas na ko fa daal di amal mu daal di toll ci ñaari fan daal di wuyu woote naataangoom bile di njiita réew bu Turquie di Recep Tayyip Erdogan murid nag ab tukkib nemmeeku goo xamante ni ña ngi cee xaar rek ngir ñu daal di gën a rataxal seen diggante diggante Sénégal ak lii di Turquie jëm seen demlanteeg seen diggante seen demlanteeg seen dikkalante gi waaye tamit nag lii jëm nag ci wàllum koom-koom ak sécurité ak lenn li tamit ñoo ngi koy xaarandi ngir ñoom ñaari réew yi le ak ñaati ñaari njiiti réew yi ñu daal di ko mën a waxtaane daal di doon sololu lii di tukkib nemmeeku moom njiiti réew Bassirou Diomaye Diakhar Faye ca Turquie di ab tukkib nemmeeku ñaari fan nañ ko junjee woon ca ndorteelu xibaar yi noonu lañ koy daal di itamit uh, doore jëm nag ci li nga xamante ne mooy wàccaayu ñay toogal askanu Sénégal ci pencum ndaw réew mi di nag élection législative yi la campagne bi daal di ko door naka noonu nag li di société civile gannaaw bi ñu nemee ko ay xastantek yéen ñi ni mel ci campagne gi ak itamit yenn ñaawte fu war a rek ba ñu daal di uh, jukko ngir daal di nag ci sol uh, tànk jàmm daal nak woote li nga xamante ne moo di jàmm wala nag ba ñu amal ab projet ñu daal di ko dippee saxal jàmm mu dox nag diggante ONG 3D ak li nga xamante moo di société civile bi niki tey sax nag lañ ko daal di euh, lancé ci alxames gi bi fanweeri fan ak benn ci weeru octobre bi ñoom nag la ñu bëgg moo di rek fexe ba way politique yi ngir ñu daal di woote jàmm waaye tamit li jëm ci élection yi ngir rek lii di jàmm ak tamit stabilité réew mi doon loo xamante ne daal dana doon kàddu yi ñii di way politique yi ngir ñu daal di ko gën a mën a fësal waaye tamit askan wi tamit daal ko gën mën a jëmbal ña teewlu seen ab ndaje wi lee Ndella Ndiaye la bu ko ciy leeral ay kàddu yu ñagas yu tegginewul lañ nemmeeku léegi ci langum politique bi li ni mel tax ñi lee nga xamante ne ñoo féetewoo ci société civile bi taxawal benn kuréel tuddee ko saxal jàmm ngir jëlee fi lépp luy fitna ci biir réew mi. waaw saxal jàmm dañ ko dañ ko euh, sumb parce que dañuy gis ne euh, suñu espace politique bi depuis quelques années waaye depuis euh, plus particulièrement depuis 2021 dafa xaw a dafa xaw a yëngatu dafa xaw a tërët yi àndax ay violence yu bari euh, àndax ay euh, ay bakkan yu rot yu bari ñu ne nag euh, nañu fagaru pour fexe ba élection yi ñuy jëm nii mu bañ a am ay euh, tuuxi doona xeex bi leen nag nga xamante ne waa ONG 3D ak kuréel gi ëmb societé civile bi yëpp ñoo ko daal di sumb naka noonee nag jëwriñ bi ñu dénk wàllum kaaraange réew mi Jean Baptiste Tine moom naka daal di nay xamle nii fas yéene na leen jàppale waaye itam gunge leen taxawu leen ba jàmm mën a dellu siwaat biir réew mi. dafa nekk ci sunu dafa nekk ci sunu aada jàmm dañ koo bëgg bu ñu nuyoo sax jàmm lañuy lañuy lañuy yéene sa morom ñun amuñu lu dul ànd ak ñoom.

parce que loolu dafa wara deuk dafa wara sax. jëwriñ bi jité projet bi leen nak mu ngi sakku ci ñi lee nga xamanté ne ñoo sekk langum politique bi ñuy jëfé ak waxé waxee lépp luy woote jamm ngir jamm mëna saxat dak ci biir réew mi di Sénégal. noonu li ñu leen di wax mo ñu délo ci seen xel ñu délo ci seen xel élection du guerre élection du catch élection euh, c'est vrai compétition la mais compétition bu nga xam dañ koy def. euh, ci ci dal ak ci jàmm. gu yi na benn bi dina nekk euh, ci élection yi ñuy dem dinañ ko saytu dinañ ko observer dinañ def monitoring de la violence euh, te dinañ def tamit doxal tamit ay programme bu ci weesu sax euh, naka la tuddee élection yi. ñu wax ci njiital gëm sa bopp Bougane Gueye Dany yoon teggi na ko loxo ni ki démb la woon ci àllarba gi ca Tambacounda gannaaw nag bu ko daal di tegg woon loxo naka noonu nag moom ñu daal di ko daan benn weeru kaso koo xamante ne du ko daal di nag ba mu génnee yëkkati na ay kàddu yu njëkk daal di ko jagleel askanub Sénégal rawatina ñi nga xamante ni ñoo ko doon jàppale doon ko euh, taxawu euh, waaye nag mu daal di ca bokk kii di Sidiki Sidiki Kaba nekkoon fi nag élimaane jiwri ni ci euh, ngurub kii di Macky Sall waaye tamit nag moom Bougane Gueye Dany dellu siwaat

de l'opposition au soir du 17 novembre jàpp naa ne man jar parce que dama gëm ne bu fekkee le Sénégal dong la ñuy xeexal di bañ lu Sénégal lépp lu yak Sénégal war nañu jaral ñun suñu bakan, jaral ñu suñu liberté rawatina nag bi nga xamee ne li ñu ñu Sénégal yëpp àndandoo nañu joy ko ak man parce que injustice la boo xam ne gis nañu namu mu mais comme limay wax rek li yalla di rafétal mm-hmm. ngi vous avez vu au tribunal aujourd'hui le procureur gendarme yabu yakaron pour chargement gendarme yoy ba ñëwé ñoma sét kon c'est parce que tout simplement euh limay wax demb mom lay waxat tay ragal yab yalla mm-hmm. ñu wax ci li nga xamante ne moo jëm ci campagne jëm ci législative yi ñuy daal di nam amal fukki fan juróom-ñaar démb nag doon ñeenteeli bés bi ñu daal di ko nemmeeku ci biir réew mi mu mel ne nag daal di jax lool. jëm ci ay meeting ay porte à porte ak ay euh, caravane ak yenn yi ni mel jëm nag ci coalition yeeg mouvement yeeg parti politique yi nga xamante ne soobu nañu ci yile euh, jongante naka noonu nag lañ ca gën a nemmeeku di teggi loxo gi ñu teggi loxo njiital gëm sa bopp Bougane Gueye Dany waaye tamit kii di Ousmane Sonko di euh, njiitalu Pastef fi nga xamante ne ni xam leen nañu lii di cortège am dañ ko daal di attaqué ca diwaanu Koungheul lii yëpp maam Awa Sall dellusiwaat na ci ñu ànd leeroo li nga xamante ni si nag mooy campagne yu élection législative yi ñu anticiper war koo amal fukki fan ak juróom-ñaar ci weerum novembre nag moom mu ngi continuer di jax bu baax a baax. candidat yi ci bëri nag ñu ngi dal di continuer seen opération ngir mën a convaincre électeurs yi ngir ñu mën a am ab majorité foofee ca assemblée nationale. ak ki nga xamante ni si nag mooy Ousmane Sonko di leader bu parti PASTEF moom daa daal di tànn dëkk bii di Kaolack ngir dal di fay amal ab campagne xamante ni fii nag mooy Serigne Mboup di meeru dëkk ba nag moom daal di nay tatagal kii di premier ministre bi daal di koy dalal foofee ca kawlax ca chambre de commerce ba ci boobu boobule occasion nag kii di homme d'affaires bi dal daal di rejoindre lii di mouvance présidentielle bi ci yile campagne ci noonee sax kii di Ousmane Sonko nag moom daal di nay jàll ca la ngir daal di fay wëyal ab campagne am ci yile élection moom moomee sax dal dinay wër dëkk ba yépp ci ab bu ñu fa dal di amal la ci noonee sax dal dinañuy nemmeeku ni foofee ca Koungheul lañ dal di attaqué ab cortège ma démb ci àllarba ji ñii di coalition sàmm sa kàddu nag moom mënees nañoo wax ni seenub campagne dal dinay door gannaaw ba nga xamante ni si tribunal bu Tambacounda dal dinay libéré leaderu gëm sa bopp bi te it mu bokk ci list bu sàmm sa kàddu di Bougane gay Dany ñii di moom xamante ni si mooy violence yi ñu nemmeeku ci ndorteelu campagne yi le moom moomee sax mu ngi ñaaxaat mboqu kandidaawam yi ngir ñu dal di mën a wàññi bi la violence te dal di jublu nag ci l'essentiel bi mooy convaincre sénégalais yi ci ay ambiance ak i xuloo yenn saay sax ay kàddu yu xaw a ñagas lii di campagne bi nag moom mu ngi wëy di am fii ci Sénégal ñi nga xamante ni si nag ñooy leader yu parti politique yi nag yi dal di exposé seeni ay programme ak it vision bi ñu am ci assemblée bu yees bi ñu nar a taxawal fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru novembre ñu desandi uh, ci yile campagne wax nag ci alsar di ànd liggéey Sénégal ak uh, Racine doon nag mouvement bi nga xamante ñoom it soobu nañu ci yile jongante naka noon nag ni ki démb ci àllarba gi ñoom ñu ngi woon fii ci diwaanu Ndakaaru ñu amal fi nag ab caravane ci yenn gox yi lu ci mel ni Point E ñaari tali ak li nga xamante mooy zone bi ak li ni mel gannaaw nag caravane ga ba mu uh, jeexee kii di Mamadou Abili bokk nak ca ñoom di coordonnateur alsar waaye tamit nag ñu daal ko investir ci liste nationale bi mu daal ci am ñetteelu toog bi ñaax ñi di militants yi ak i askan wi ngir rek ñu daal di mën a voteel li nga xamante ne moo di seen euh, mouvement boobu ci yile élection waaye tamit nag mu doon na caravane goo xamante ni dañuy gën a daal di wanale askan wi ak li nga xamante ne moo di euh, lii di seen programme naka noonu nag kat ña teewlu ay kàddoom Mansour Dia si yàq la kunte la ñu teewle Assalamu alaikum euh, mbokki euh, Sénégal tay mouvement and liguey Sénégal ak Racine mo entamé ses caravanes de sensibilisation dans les artères de Dakar ñu ngi doré point E biñu joggé point E jaar zone A zone B dem euh, ba ñaari tali ñu ngi ni jet d'eau dinañu continuer ba Castor terminer tay suñu procession Grand euh ndaje bi parce que nous assemblée nationale assemblée nationale binga nga vous porter préoccupation sénégalais yi parce que mouvement andi Sénégal ak Racine donne le mouvement bi nga xamante qui tey Sénégal mën nañu exemple de la politique de développement exemple de l'action action président Racine Sy def Sénégal dans le sens que les jeunes, les ndaw les jeunes liste la bi nga xamanteni buñu démé assemblée nationale député yiñ fay am dinañu def rôle de contrôle de l'action gouvernementale mais en même temps di proposer des projets de loi yi nga xamanteni japp nañ ni lolu améliorer les conditions de vie des populations dem nañu Thiès dem nañu Tivaouane et inshallah dinañu dem partout ci 14 régions du Sénégal prêcher la bonne parole demander population nous ñu votel liste bu baax bi liste ànd Liguey Sénégal ak Racine li lee di réewum Sénégal li le di Sénégal Jordan na lu toll ci ñetti téeméeri million ci euh, dollars, ci li nga xamante moo euh, marché financier international li Nak, nag mu jëm rek ñu daal di mën euh, ñongal li nga xamante ni besoin jëm ci financement ci li nga xamante ni jëm ci exécution budgétaire bu atum 2024 doon nag xibaar woo xamante ni jëwriñ ngi ñu dénk wàllum finance ak budget daan na ko xamal ci àllarba googu bu ñu sukkandikoo nag ca ñor kaddu bi le ministère la ñu xam ne rek moo di ni bile le opération rek mi ngi jëm rek ngir daal di mën a consolider li nga xamante moo jëm ci finance publique bi gannaaw nag bi FMI daal di rek euh, reporté lii di décaissement initial bi waaye nag jëm ci li nga xamante ni moo di audit gi ñu daal di amal te Cour des comptes daal di ko amal leeral dañ ci ak ak euh, Amsatou Gano L'État du Sénégal a récemment franchi une étape importante en levant avec succès 300 millions de dollars, soit environ 181, 181 milliards de francs CFA sur le marché financier international. Cette opération. ci besoin ci wàllum financement ci cadre bi nga xamante ni ni moom lañ dippee exécution jëm ci budget bu atum 2024 naka noonu nag ko daal di xam ne di jëw nañ gi ñu dénk wàllum finance ak budget ni ki ci àllarba gi waaye nag bile mbir mi ngi jëm rek gannaaw bi nga xamante ni FMI daal na dakkal li nga xamante ni moo jëm rek ci décaissement initial gi mu daal di naroon a amal gannaaw nag bi ñu daal di xayma ay rapport jëm ci Cour de comptes leeral lañ ci ànd ak Amsatou Gano li ñu charte la boo xamante ne bii mooy boole sunu ñaari département ministériels yi ci naka la ñuy liggéeyee ngir may ndawu Sénégal ñu am xam-xam am mën-mën buy tax bépp métier boo xamante ne bii dafa jóg wër ci département bi ñu nekk muy énergie pétrole émine ndaw yooyu am compétence yi ba tax bu liggéey ubbeekoo ñu mën a teg seen ndënd. ñu wax ci wàllum énergie ak jëwriñ gi dénk wàllum énergie ak pétrole ak li jëm ci wàllum mine di Birame Souleye Diop ak kii nga xamante mooy naataangoom bu ñu dénk wàllum formation professionnelle di Moustapha njekk Sare ñoom nag ci àllarba gi daal nañu xaatim app convention goo xamante mi ngi jëm rek ci wàllum énergie mbile mbir nag jëm rek ngi daal di gën a mën a ñogal li jëm ci formation professionnelle ci secteur ci wàllum énergie. mu nag activité woo xamante rek mi ngi jëm rek ngir daal di amal aw programme woo xamante ne mu ngi jëm ci wàllu formation ci école entreprise yu daal di ko dippee PF2E naka noonu nag ñoom ñaari jëwriñ yu ne daal nañu yëkkati ay kàddu rafetlu wii la xaati mi ngi ñu daal di euh, dëxëñ ci seen euh, diggante dañaan teewlu leen seen i kàddu kooku daataan ay sotu bala li ñu xaatim tey charte la boo xamante ne bii mooy boole sunu ñaari département ministériel yi ci naka la ñuy liggéeyee ngir may ndawu Sénégal ñu am xam-xam am mën-mën buy tax bépp métier boo xamante ne bii dafa jóg wër ci département bi ñu nekk muy énergie pétrole émine ndaw yooyu am compétence yi ba tax bu liggéey ubbeekoo ñu mën a teg seen ndënd ñu jël leen ñu bokk doxal liggéey bi tax ñu mën a tontu ci li ñuy woote muy la vision Sénégal 2050 moo wax ni Jang, ba nopi wuti jang la distance entre la formation ak la formation professionnelle parce que bu formation professionnelle jang liggéey la moy pek ap ap nga jang par wara ci loolu lay yëngu. Euh, formation professionnelle dafa nekk pàcc bu am maanaa ci référentiel des politiques publiques bi nga xam ne moom la ñu présenté Sénégalais yi formation professionnelle am ci euh, wàll gu rëy gu muy joué surtout ci axe bi nga xam ne axe bu am solo la muy euh, capital humain bi nga xam ne moom la président jox vraiment rôle bu am solo ndaxte bu ngeen ko xoolee ba xool. financement yi nga xam ne moom la ñu nar a financer euh, orientation bi ak axe boobu moo ci ëppale li ñu ko ci jagleel pour wan leen rek fan la président la république teg formation professionnelle loolu nag bañ ko xamee dañu daldi taxaw ne nañu toog waxtaan ak suñu collègue yu yeneen ministres yi monsieur Birame Souleye Diop nag ma koy gërëm ci gaawal gi mu gaawal waxtaan woowu ba ñu signé convention bi nga xam ne moo ñu mën a may lii nga xam ne moom mooy programme formation école entreprise ñu mën koo jëmmal ci réew mi yëpp ndax ñu jóge ci biir réew mi utali ca bitim réew ubbi nag lii di ab euh, xibaar yi bitim réew dem nag ba ci diwaanu euh, Rwanda wax nag ci moom mi fi nekkoon médecin rwande bi di Eugène Rwamusio moom nag lii di cour d'assises bu Paris daan na ko daan

daal wax nak ngir rek ñu daal di rek euh, ñi di euh, euh, population bu Rwanda bi ñi rek ñu daal mëna mën rek attaquer li nga xamante modi Tutsi jëm nak ci génocide ga fa amoon ci atum 1994 nak non nak mom daal nañ ko daan lu tollu ci ñaar fukk ak juroom ñaar at Kasso ñu dippee un criminel mom mi lé nekkoon fi nak praticien enseignant ci ay atam tollu ci juroom ben fukk ak juroom mbokk yi ci yile xibaar dañuy daal di ndar képpee yile jotaay xibaar sant ak ngërëm ñen leen ci teewle gi sant ak ngërëm ñen lañu faroon ci xarale gi ba xibaar di mën a yem ñu dégtal leen ko yeneen ponk xibaar léegi-léegi lay doon bu juróom-ñetti waxtu jotaay ak soxna Ourey Fall Diouf ci kàllaamay nasaraan lay doon lu may loo wéy na ak suñu ay programme jërë ngeen jëf